waaw salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum ñëpp ah tey jii nag MC dafa génn ci beneen facette waaw muy nga ki nga xamante ni moom moo tudd alam nasara di borom jinne yi ki nga xamante ni mooy borom tul yi ah, paaka tul jaas yi tulu fetal borom kànnaar gi ah ki nga xamante ni ku mu faj nga wér léegi léegi léegi péng borom jooni jooni borom jalan yi ah. borom kànnaar gi. borom jaan ji muy alam nasara moom laa seeti nii fi mu toll nii ci foore bi laa ko doon wër gis naa ko mu ngi nii nag lu ne fàng kenn du ko jeex ñu jàdd dem ci alam nasara laa ilaaha illallaah ay waay fii ma jékki-jékkee dara ni ma fi ciix fan laa jëm ah salaamaaleykum ah kilifa gi ah ziar nan la waay mbaa ngi am jàmm jaajëf waay naka mu nag. sant bu baax Baye Fall ziar nañ la bu baax waay. kilifa gi ah, waa syndicalisme nag ñoo la seet si képp kuy ku bëgg a dugg ci site bi da ngay def www point syndicalisme point net waaw boo bindee alam nasara incha allah rabi dina la bind dina lépp li alam nasara di def waa kilifa gi maa ngi lay ziar. waaw ngi ci jàmm bu baax. sant nañ ah, waa syndicalisme dañ laa seet si nag. waaw ah, vraiment kontaan ci yow kontaan ci ni ngay def ah, di rafetlu lépp lépp lépp lépp looy liggéey ñu ngi koy rafetlu waaw te nag ñu ñëw lan nga ñu indi tey. waaw te yow indi nañ leen wàllu tul. Hmm? waaw tul. tul mhm. bëgg nañ dafa ñu waxtaan si xam-xam. Hmm. waaw. tulu lan tulu fetal wala tulu jaasi. waaw tulu paaka mooy ak jaasi ak lépp loo xam ne la am seel du la màtt. ak lu mel ni lu xeetu weñ lépp daal tul gi daal lépp a ngi si ba may wàllum fital waaye lépp luy weñ lañ set wala luy lu bon luy luy gaañ seng mhm. moom moom képp ku yor loolu jub si la bu ñëwee war a jëm si yow bu xàccee loxoom sax doy si. ah saa waay loolu man saa waay man mbaa bu ma ko tekkee du ma def dara. non non non non loolu moom <laughs> a ah, kon tey jii man xam naa ne moom kon tey tey tey la ñuy xool nag MC ba xam fetal ak ah, ah, jaas ni ko duggool du ko dugg waaw léegi nag alam nasara ñun kiraama yi bëgg na noo gis bëgg na noo gis lépp li nga xamante ni euh, comme que nee nga tulu paaka ak tulu ak yooyu ah yi nag lu ne faan kenn du ko jeex waaw ñu bëggoon xam kiraama yi léegi nga woon ñu ci tuuti kiraama ñu xool waaw paaka bi yaakaar naa bi ñu ñëw yaa jënd ëndaale. maa ko jënd ci boutique bi. te dama ni bu ma ko isee sama yaram. man mhm. nga ni sax gars yi mën nañoo yaakaar ni si man kese la. Mhm. mais bu ma ko defee isee sama yaram man bu jox la mhm. waaw ñu isee ko sa yaram. ñu xool bu ko bu la neexee ku la neex ngay wut moom mu ñëw mu jam la wala mu rendi la. rendi. barke Seera Faal bu daggee bu la daggee kay ma dagg sama kurus. Ah. wallaay. ah mbaa bu ñu tàmbalee rek ci sa bopp ngay mu njëkkee. waaw waaw mën nañoo njëkk sama bopp boo bëggee nii nii rek mën nañoo njëkk sama bopp. ah sañ bi njëkkee sa bopp man de MC moom ñëpp xam nañu MC lu tay la laay fam moom ah boo paree nag moom bu ree rendeeg yooyu noonu noonu noonu nga njëkkoo ci sa bopp man nag sama def moom ci yàlla ah, ci ci sam sam bopp la dépendre moom vraiment mën naa def mën naa ba nga def waaw. waaw bu la neexee non sëñ bi dafa ndànk alam nasara alam nasara alam nasara alam nasara dégg waay yow alam nasara non damaa bëgg nga jóg taxaw woon gaa yi que lii nii non lii lii di lii nii man maa ngi lox te laala guñ ma dama bëgg alam nasara nga jóg taxaw ah woon gaa yi mu leer nañ. waaw moom tur bi day jàpp ba ah? ñu ànd jàpp ñu jàpp la. léegi gaa yi di la jam. man ma téendu si yow. man sax damay turaale. ah du mën ngay téye nag alam nasara du man ngay téye doo déglu ma rek dañuy waxtaan de. man moom jaruñu may téye ndax man ba ba bala nga maa téye sama daw <laughs> mais dama bëgg mu leer nañ mais dama bëgg. nga jug taxaw ah, taxaw mu leer ñëpp nga dagg dagg dagg dagg ba mu leer. àdduna ji ci seen bët. xam nga yow nga takk joxuma la nga takk waaw ah. léegi ma loxo bi non jox ma jox non jox ma loxo bi rek ma wan la li ma lay jox ma rek waaw jox ma rek. jox ma rek waaw. sama loxo <laughs> te it takk loolu dul ba noppi soxla sa loxo bi. man boo ma ko takkalee sax. Hmm. mën naa laal mën na ko bañ a laal. Hmm. mais. Hmm. man bu ma sañoon. yow mën ngaa takk taxaw wane. loolu du ah. waaw waaw mais mais dama bëgg lépp gën a leer rek. léegi moo tax man la alma loxo bi rek. ci man waaw. ah mais takkaloo ma dara ba bëri bëgg maa ah déedéet du ma ko def. ah takkal ma boo ma boo bëggee da may takkal. takkal ma comme ni ma takkoo sam bopp nii man ku gis xam ne man. damaa sadik man ay tul ay tul yooyu man man ragaluma loolu mais tamit mënoo <laughs> déggal yi xam naa ginaar lañu séddoo cey àll baa ngi nii de la forêt ah ah gars yi ko doon jëriñoo ah la ilaha illallah mais na sara jógal taxaw fokk yow nga jug taxaw wone wane wane ni nii ak lii waaw parce que maag yow moom xam naa mag yow du yomb waaw waaw mhm. léegi defal ni woon non man kenn du ma laal man déglu rek defal ndànk rek noo yow fi mu toll nii yow wane yow yow xoolaatal sa bopp xottiwaatal sa bopp <laughs> waaw loolu moom xam naa <laughs> yaakaar naa. Mhm. tul moom dañ koo man ba nga xam ne ñoom ñëpp xam nañ ni moom mën nañ tul. Hmm. waaw te buñ ko buñ ko defaree moom du taxaw sax. Hmm. waaw léegi mu des kan. waaw mu des man. waaw mu des yow. léegi xam nga def waaw man bala maa def dara dañ may takkal. Ah, ok waaw. alam nasara uy ma alam nasara non non lii di dara góor yàlla nga yow waaw ah, bu góor daa war dëgër góor sa la waa ah. ah mais góor tamit mën naa bëgg dëgër de daa war dëgër bu ñu neexee sax jëruñuy gaw ndomb yëpp quoi déet gaw ko yëpp non non baal ma gaw benn déet da nga koy gaw de baal ma gaw benn bi rek am na sara man waa léegi wuy ma ban heure nga ma bëgg kii waaw léegi nii kay léegi nii ñu jublu si. tuut par tuuti rek jël boor bi non rek eh, waay. waaw ah allahu akbar waay yow te nga waaw wuy ma xoolal dimbali ma rek sama yaram na nanguwul lii. non non non. mais danga may def ndànk par ndànk par ndànk sax naa. xam nga fii moo gën a kii fii fi gën a nooy. waaw mais ndànk ndànk ndànk ndànk mais non non bul du metti non du metti du ba ma teel sama bopp teel teel teel du non de non du noonu hmm. non du noonu sedd alma woon rek alma alma xàcc bu baax man maa ngi dem sama bopp waay ah. kon leer naa waaw <laughs> <laughs> tul naa nag waaw tul naa sama gars yi lépp fii lay xewee ci syndicalisme def www point syndicalisme point net MC dafa génn ci beneen facette ak alam nasara rek ah chaque semaine ñu may leen benn bu leer naññ lu ne fàng ne kenn du ko jeex yow lii sax demul mais dafa mel ni marque ni hmm? xamul hmm. lii bu doon non yow mais yow mënul nga xoolaat sa bopp. waaw man moom garaw da tekki ma. léegi sama loxo loxo yombul ay moom xam naa ni sama gars yi képp ku ko soxla. incha allahu rabi ah? waaw ndomba laa ngi nii tulu tulu paaka ah tulu jaasi tulu lañset tul bët ba ñuy egg ci leneen parce que am na jaan ji jaan jaa ngi ñëw ah? jalan yaa ngi ñëw def léegi gis léegi la ak alam nasara def léegi gis léegi am na kànnaar nag kànnaar moom xam nga ñan laa yërëm ah ñi nga xamante ni ñooy soog a doxaan wala ñu gis gel boo xamante ni duñ koo bëgg dañ koy xëcc gars yi affaire bi nag mu ngi noonu ak alam nasara tout est possible alam nasara léegi bii di ñëw lan nga ñuy indil. waaw bii di ñëw dañuy indi jaan bi. wala ñu indi kànnaar bi yaa ngi xool bi nga boo bëgg rek wala ñu indi ni ñu fajee seytaane bu nekkee si nit junne bu nekkee si nit